day tàmbalee wax nag ñi nga xam ne duñu mën a sëy sëy day araam seen diggante mu tàmbalee ko ci kenn ku ne ka ko jur ba ca aadama rek araam na ci moom man ngaa takk ne bu dee góor a yaayam ak maam mu jigéenam mu wéy ba ca aadama araam na ko ci takk-takk kenn ku ne doom bu jigéenam araam na ko ak sëtam araam na ko moo xam sët bu daa bàyyi ko doom bu góor moo xam daa bàyyi ko doom bu jigéen loolu rek ba àdduna tukki képp koo xam ne moo ko jur mbaa moo jur ka ko jur si aram seen diggante doonte sax nam ko jure di ci yoon mooy ci njaaloo la dañuy jàpp ne góor bu njaaloor jigéen ba doom juddoo ca dëgg la doom joojee nekkul doomam ci yoon waaye du tee nag mu aram ci moom mu takk ko ñu ne sax bu fekkoon ne ak góor dafa njaaloor jigéen xam nga du njaaloor moom te fekk jigéen di amum soow ku namp rek ca soow moomee day mel ne góor ga njaaloo woon ak moom dal ne doon baayam moom moomee nàmp doon doomam nga xam ne kon bu ñu waroon ne góor gi njaaloo naag jigéen jee te fekk muy nàmpal ku jigéen ja nàmpal ca so ku nàmp rek ca soow moomee day mel ne góor ga njaaloo woon ak moom dal ne doon baayam moom moomee nàmp doon doomam nga xam ne kon bu ñu waroon ne góor gi njaaloo naag jigéen jee te fekk muy nàmpal ku jigéen ja nàmpal ca soow moomee rek góor ga njaaloo moom du ko mën a takk ndax dañuy jàpp ne ndegam kooka nàmp na am soowam moo jur ko ci njaaloo ñooyemoo kenn ku ne ku baayam mës a takk rek araam na moom di ko takk ba tey ku maam ju góor mës a takk mbaa maamaatum ju góor ba ci aadama rek araam na mu takk ko ba tey ku doomam mës a takk dana araam mu dem di ko takk ku sa doom mës a takk rek jeex na te loolu day yëy ba àddunay tukki maanaam biñ ne sa doom sëb sët ca la sëb sët ku mës a takk doo ko mën a takk doonte mayu kese la nga jàppaale foofu ne kon jigéen ku mës a takk yaayam rek daal di koy araam jigéen ji na jàpp ne ku mës a takk yaayam rek mbaa ku mës a takk maam mu jigéenam rek ba ci aadama digganteelu jigéen jooju daal nay araam ba tey kon jigéen mën naa jàpp ne ku mës a takk doom bu jigéenam mbaa ab sëtam ba ab nay tukki rek si araam la seen diggante ak jëkki ci saan mooy ndey ak baay day wane ne sa ndey ak sa baay ku ñu jur rek araam na nga séy ak moom ndax mooy bokk yu góor ya ak bokk yu jigéen ya képp koo xam ne sa bàyyi ko jur mbaa sa yaayoo ko jur rek araam na ngeen sëy ak nag seen doom boole ca jàppal ne koo xas bokkal ndey mbaa baay mbaa ñaar ñëpp ni la doomam di araame ak sutam bu soqi ko ci moom bu àdduna tukki noonu lay araame ba tey mu ne boo delloo ca sa maam ju góor ak sa maam jigéen jàppal ne sa maam ju góor ku mu jur rek araam na nga sëy ak moom ndax bu dee góor doon sa baay bu ndaw bu dee jigéen doon sa bàjjen ba tey sa maam jigéen képp kum jur rek araam na nga sëy ak moom ndax bu dee góor di sa nijaay bu dee jigéen doon sa ndey ju ndaw waaye nag ci ñoom la yem ñoom buñ juraatee la ñu juraat mën nga ko takk mel ne sa baay bu ndaw mën ngaa takk doomam sa bàjjen mën ngaa takk doomam sa nijaay mën ngaa takk doomam sa ndey ju ndaw mën ngaa takk doomam maanaam boo xasee takk jigéen moom doon si sax mayu kese kese la itam yaay jigéen di dalay araam maam bu jigéenu araam la ba ca aadama li am na mu jaratan xaq di xalal banaat yu xarimul ummahaat kon jàppal ne kuñ la xas may rek donte may kese la jeexlu nga ci yaayam ak maam bu jigéenam ba ca aadama mu ne itam buñ la mayee jigéen te yemoo ca may ga xanaa jot ngaa bànneexu ci moom donte sax daa faatu ba noppi nga door a bànneexu ci moom kon ku mu jur mbaa ku sotoo ci jigéen jooju rek dal lay araam maanaam jigéen moom buñ la ko mayee kese yem ci te yoo soogu leen may ga amoo ci moom benn bànneex mën nga ko bàyyi takk doomam baab sëtam waaye nag boo xasee am ci moom bànneex doonte sax day bànneexu xool ci ay bët xool ci bët bu fekkee lam xool ba am ci bànneex bu kanam nga du cëng ya feneen la ci yarama ni ki kawar ga mbaa feneen dañu jàpp ne daal nay araamal doomi jigéen jaak ay sëtam waaye nag bu fekkoon ne jigéen dañ ko may daa xool rek kanam am ci bànneex wala ay loxoom rek muy cëng ya am ci bànneex doon yem ca waaye xool feneen ba di ca bànneexu du araamal dara waaye biñ ko mayoon jigéen ji jigéen ja faatu mu daal di am bànneex ca moom moo xam ci laal la wala ci jonjoo wala ci xool fu bokk te kanam nga tëng yi sax du tee doomi jigéen jooyu daal koy araam ak ay sëtam ba ca tukkital àdduna kon takkal ne biñ ko mayee jigéen du ñu ne faaw day dem ba jotee moom ci sawukaay doomi jigéen ja door koo araam baab sëtam dañuy wax ne kay nu mu bànneexoo ca moom rek doon ci xool la te xool ba weesu kanam ak tëng rawante na nag jonjoo ci yaram mbaa fóonante dal nay araamal ci moom doomi jigéen joojee mbaa ak sëtam ba adduna tukki jamono yi jaam amee moom ab daam rek du tax yaayam araam la mbaa maamam mbaa doomam ba ab sutum moomu kese waaye nag boo xasee bànneexu ci moom moom yaayam dal lay araam maamu ji dal lay araam doomam dal lay araam waaye jëm moom kese moom yooyu jamono daawul araamal ay cosaanam mbaa ay bànqaasam waaye yooyu jamono ba masa am jaam bu jigéen rek ba bànneexu ci moom jeexlu nga ci bànneexu ci yaayam mbaa maamam ba tey doomam mbaa ab sutam moom kooke itam araam na nga bànneexu ca moom jamonoy jaam amee moom boole ay jaam yu jege jege mel ni ndey ak baay bu dee moom kese gi dara nekku ca waaye nag bu xësee bànneexu ci kenn rek mu daal di araam ci moom mu wëlbatiku bànneexu ci ka ko jur ba ca aadama mbaa ku kookee jur ba adduna tukkee dafa tudd ba tey jaawale ga ak moomel waaye ba tey ca la jamonoy jaam amee soo jaawalee jaam bu jigéen ak kenn koo moom ba jotee moom yaayam moom kookee nga jaawale bu jotee moom ak maam bu jigéenam ba ci aadama araam ci yow ba tey doomam ba ab sëtam itam araam ci yow ba adduna tukki bala araam googu am nag yow góor gi bànneexu ci jaam bu jigéen boobee ci jaawale nga àgg ci kàllafe nga sax jaam bu jigéen ba nga xam ne moom nga jaawale ba bànneexu ci moom moom duñ ca sart ak kàllafe moom mi góor gi daal bu xasee kàllafe jaawale jaam bu jigéen bu mu moomut ak ban bu moom nga xam ne rek doonte jaam bu jigéen boobee àggul ci kàllafe moom ku jur jaam bu jigéen ba niki yaayam ba maamam araam na ci moom ba ca aadama ku jaam bu jigéen ba jurit muy doom buy sët ba adduna tukki daal di araam ci moom wax ji gën a wóor ci yoonu Maalik mooy jaaloo moom du araamal dara li tax mu ne nag xaal arjaax daa am ñu wax ne jaaloo googu moom it dana araamal waaye li gën a wóor daal ci yoonu Maalik moom mooy jaaloo lu araam la du yàq la daga noon lu may nag mu njaaloo jigéen ba am ca doom ca njaaloo ga waxoon nañ ne doom jëm ci jur moom dana ko araam faw faw waaye lu bokk te loola njaaloo ga du araamal dara bu jaaloo woon nag doom bu jigéen soxnaam niki doomu jiit la nekk fa mu njaaloo moom it du tax yaayam joojee mu yor araam ko ba tey bu njaaloo woonu jigéen du tee baayam mën naa ñëw takk jigéen joojee doomam mbaa sëtam ba tey mën naa ñëw takk jigéen joojee mu ne nag sëy boo xam ne ñëpp maasañ ci ne baaxut te ka takk bu ca teg ka mu takk ñu jotañ ko mu ne sëy bi mel noonu ci xeetu njaaloo la bokk ndax nga xam ne du araamal dara mel ne jigéen ju tollu ci idda mu tey ko takk ko ci biir idda ja mbaa mu takk ab juróomeel mu wóor ko ne ab juróomeel te araam na te teewul mu def ko ci tey dañuy jàpp ne sëy ba fasuwul sax ñëpp a dogu ci ak yàqoom te it daañu jëtan kookee nga xam ne moo takk noonee ba jotee ndegam dogu nañ ci ne des na ko jëtan rek kon du araamal dara maanaam takk googee du araamal dara wéet ga wéet ka mu takk du araamal dara moom ci boppam mën na takk yaayi kookee wala doomam ba tey baayam mbaa doomam mën naa ñëw takk ko ki nga xam ne moom la takkoon ci biir idda te tey ko mbaa kam takkoon mu di juróomeel te tey ko joteeg moom waxoon nañ ne sëy boobu ñu dogu ci ne baaxut ni ki takk ab juróomeel mbaa takk ku nekk ci idda te tey ko bu fekkee ne may kese la moom du araamal dara li wax ni nag mooy ka takk àgg na ci joteeg moom waaye des na ko jëtan ndax li mu def moo ko tey kon nag bu fekkoon ne dafa takk ab juróomeel ci ak ñàkk xam wala mu takk ku tollu ci idda ci kaw ñàkk xam nga xam ne teyu ko jote gam joteeg moom deesu ko ca gétan ndax duñ ko jàppe njaaloo ngir teyu ko waaye takk googu day daldi araamal la ak takk daan araamal mooy du mën a takkati moom góor gi ci boppam yaayu jigéen joojee mbaa maam mu jigéenam ba ca aadama du mën a takk itam doomam ba adduna tukki baayam moom ci boppam ak doomam itam jeexlu nañ ci kookee mu takk noonee ci ñàkk xam ba joteeg moom mu ne nag bu fekkoon ne dafa jublu woon a joteeg soxnaam mbaa boog jamono jaam amee jaam bu jigéenam boo xam ne sañ naa joteeg moom mu jaawale ko nag joteeg doom bu jigéeni soxnaam wala yaayi soxnaam su boobaa moom soxnaam soosee da ko daal di araam ci wax ba gën a wóor muy wax ba ñu sukkandikoo kon takkal ne bu jublu woon a joteeg soxnaam jaawale ko joteeg doom bu jigéeni soxnaam soosee wala yaayi soxnaam soosee nga xam kon soxnaam soosee daal na koy araam ca wax jooju sukkandikoo dëgg la jaawale dong la waaye du tee soxnaam daal di koy araam araam na ci ab julit muy takk ab juróomeel te tey ko móor ko ne ab juróomeel la ci moom moo xam nag moom góor gi day gor wala jamono yi jaam amee mu doon jaam muy gor muy jaam kenn ku ci ne moom sañ naa takk ñeenti soxna waaye nag weesu ñeenti jàll ci juróomeel la wax ne araam na ci mboolem góor ñi kenn sañu ko ci buñ ko mayandoo woon sax juróomi soxna benn yoon nga xam ne juróom yëpp ñoom lañ mayandoo juróom yëpp ay yàqu duñ mën a wax ne na tànn ñeent mbaa dara dañuy jàpp ne am na benn bu yàqu te xamuñu ban la ci ñu daal di marché ci araamal juróom ñëpp ñëpp waaye nag bu ko neexal batigu takaat ca ñooñee kenn mbaa ñaar mbaa ñett mbaa ñeen li alquran ne wa anta jimaama bayna uxtayni bokk na ci araam boole ñaari jigéen def leeni soxna te ñu ñaar ñoo xam ne kenn ku ci ne boo ko napparewoon muy góor du mën a seeg ka ca des nga ne boole ñaar ñu bokk ndey ak baay wala ndey rek wala baay rek ñaari jigéen ñooñee koo ca nappale woon maanaam koo ci jàppe woon góor rek du mën a seeg ka ca des ndax xam nga ne nit mënta seeg kam bokkal ndey baa ba wala kam bokkal baay wala kam bokkal ndey ak baay ba tey ki mënta boole jigéen ak koo xam ne bàjjan la ci moom ndax koo ci jàppe muy góor rek yoon aaye mu seeg ka ca des mu wéy nag boole ga mooy aay nag waaye mën naa yorekee ba tàggoo moom takk ca des mbaa mu yokkee mu faatu mu takk ca des jamono yi jaam xëyee itam ñaari jaamu jigéen yoo xam ne boo jàpp woon kenn ko góor du mën a féeg ka ca des ne ki ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay mbaa ndey mbaa baay ak lu demee noonu bu dee ci wàllug moom mën nga leen a moom moomu kese ndegam doo ci jotee kenn kenn waaye nag boole leen ñu naan ñëpp di jotee ñoom li ngay jotee soxna mooy araam bu ñu nee ñaar ñi sañoo su leen a boole bu leen takkee waaye nag dañoo mayekee door a maye ka ca des de mayandoo wuñu leen ñu leen mayandoo woon moom lépp yàqu waaye ndegam nag bu leen su leen a boole waaye xam nañ kañ ko njëkk a may kañ ko njëkk a may rek moo baax sëyub ñaareel ba dañ koy tas te dee su ca tudd tase ndax dañuy jàpp ne fasu wutoon sax bu fekkee nag sëyub ñaareel bi nga xam ne moo mënta ànd ak bu njëkk ba dañ koy tas wéet amut te it jigéen jooja nangu na ne man lañ mujj a maye maay ñaareel bi maa baaxut kon jëkkër ja du ci joxe genn wàllu can waaye nag bu jigéen ja nanguwul ne man lañ mujj maye kon faaw jëkkër ji waat ne moom kat moom lañ mujj maye ba dee su ko laaj mu joxe genn wàllu can ci bu ko yoon dee tas moom daal boo ko si amay seere ne kii lañ mujj maye muy ku ñaareel mbaa jigéen ja nangu ne moom lañ mujj maye mu di ñaareel te mënta ànd ak sëy bu njëkk ba yoon daal di koy tas te fekk na wéet amut kon góor ga muy kañ mayoon soxna dee su ko wax mu joxe genn wàllu can waaye nag bu jigéen ji nanguwul ne maay ñaareel bi mën nañ mujj maye faw góor ji war a waat ne moom ab ñaareel la du bu jëkk ngir wàcce boppam genn wàllu can ga bu waatee rek ñu jàpp la mu wax bu ragale waat nag ñu ne jigéen joojee moom na waat ne man duma ñaareel maarum ko njëkk ka te kon loolee mu wax te nangu koo waat te góor gi mu ragal koo waat dana tax góor gi war koo jox genn wàllu can ga xëy na doo fàtte ne bu fekkoon ne jëkkër ji jot naa wéet ak moom mii ne moo di ab ñaareel itam maanaam moo leen mujj maye itam ne ko wéet am na rek moom faaw mu war koo jox can moo xam jigéen ja nangu na ne man lañ mujj maye ma di ñaareel moo xam nanguwu ko ne ko wéet am rek moom can mënu caa ñàkk suñu mayandoo ñaari jigéen ñoo xam ne yoon nangu wut ku leen boole yorandoo mel ni nga misaale woon ñaar ñu bokk ndey ak baay ñu mayandoo leen ci jenn jenn jamono nga xam ne bi yoon moom mu lees wax ne kee lañ njëkk a maye kee lañ mujj maye dañ leen a mayandoo ci yenn jamono kon yaar yëpp la ñuy tas benn du ca baax te tas ga duñ ca tudd fase ndax ñëpp dogu nañ ci ne loolu baaxut wóorut buñ ko tasee noonu nag bu ko neexee mu wëlbatiku takkaat ci kenn ci ñoom ñaar suñ ko mayee ndey ak doom genn may goo xam ne wér si wax ne kee lañ njëkk a mayee kee lañ mujj a mayee te ñaari jigéen ña ndey ak doom lañu mu far wéetal ñaar ñëpp kon ñaar ñëpp koy araam ku ñu may ñaari soxna yoo xam ne kenn ka mooy yaayi kenn ka xam ne kon araam na ñu boole leen yóbbu ca may ga xanaa joteeg ñaar ñëpp muy ndey ak doom kon ñaar ñëpp koy araam te it moom ma ñu may ñaari soxna yoo xam ne kenn kaa jur kenn ka li ñu wax ak doonante du ci am mooy ku ko may mooy li ñu waxoon léegi bu fekkee ne dañ koo mayandoo ñaar ñoo xam ne yoon nangu ku leen boole waaye nag may kese la jotu caa wéet ak kenn kenn kenn doonte sax ñaar ñañ ko may kenn ka mooy yaay kenn ka itam muy ndey ak doom it daga mayu kese rek la moom mayu kese du araamal niñ ko waxee woon mën naa wëlbatiku takk ca kenn ci ñoom ñaar ñaar ñi kenn mënta boole ñu mayandoo ko ñaar ñëpp ñu wax ne benn du ca baax waaye léegi wéetu ci kenn kenn mën naa wëlbatiku takk kenn ka mooy nag bu fekkoon ne daa wéet ak kenn ka ka ca des wéetul ak moom mel ne buñ ko mayandoo yaay ak doomam muy genn genn may ñu ne mënees leen a boole waaye nag jot naa joteeg yaay ja kon yaay ji rek moom lay mën a def soxna waaye doom jigéen ja moom araam na ko araamu dapetoo dafa tellu woon ci di wax naa suñu ko mayandoo ñaari soxna yoo xam ne kenn ka mooy yaay ka ca des kon muy ndey ak doom kon su fekkee ne jotu ca wéet ak kenn moom dañ koy tas di desu ci tudd tase te nag bu fekkee jot naa joteeg ñaar ñëpp muy ndey jaag doom ja ci kaw takk googu ñaar ñëpp koy araam su fekkee takk ga rek la waaye jote caa joteeg kenn kenn itam ñaar ñëpp dagan ci moom day tànn rek ko ci neex ñu fasal ko ko fas gu baax su jotee wéet ak kenn nag kam jote wéetal rek lañ koy fasal fas bu baax moom mu téye ko ka ci des nag daal di koy araam araamuk dappetoo ba ne nag ñaar ñoo xam ne mëneesu la na boole yorandoo moo xam ci takk la moo xam ci moom la bu xësee yor kenn ka ba bànneexu ca moom te bëgg koo bàyyi dem ca ka ca des kon day fexe ba ka mu soxlaatut te bëgg koo bàyyi mu daal di koy fase fase mu amul fay li loolu bokk na ci yi mën a tax mu mën a dem ca ka ca des kon léegi si nga xam ne wàllum njaam moom xewi na ñëpp ay gor lañu mën ngaa jàpp ne kon bu ñu nee ñaar ñi mëneesu na boole mel ne dañoo bokk ndey ak baay mbaa jigéen jee di bàjjenu ko ca des su bëggee mën a yore ka ca des kon day fexe ba comme yoroon mu summikonte moom summikonte mooy ne ko jox ma nangam ci alal mu tàggoo comme yor ba amatul ak bëgg ci moom su fayanteeg moom alal rek ñu jàppe ko ne fase na ko fase moo xam ne ak fay li mënu caa am lu neexee idda ji jeex mu takkaar rek waaye fay li mënu caa am su boobaa nag kon mën naa daal takk gëm bëgg a takk ba tey bu ko neexee fase kii mu yore pase mu dog fase ko ñetti pase nga xam ne faaw jëkk jaaral fi mu daal di mën a dem ca ka ca des wala mu fase ko pase moo xam ne muy mën a fayli la waaye kon faaw mu bàyyi ba idda ji jeex bu idda ji jeexee nag nga xam ne takkaat rek sës mën naa dem kon ci am bëggoon a takk te mënus koon a booleeg moom bi ci des nag moom dogalub yàlla lay doon mooy kii mu yoroon faatu bu kooko faatoo kon mën naa daal di takk ka ca des wala bu fekkee ne ka mu doon joteel ba amatu ca soxla bëgg jàll ci ka ca des dafa nekkoon ak jaamam mu daal di fexe ba mu génn ci moomeelam niki mu goreel ko donte sax du goreel gu teew dane ko buñ àggee dele sangam nga gore mbaa mu jotoo moom ne ko jox ma nangam ci alal te gore mbaa mu wutal ko jëkkër te fexe ba sëy ba doon sëy boo xam ne kilifa kañ ko may du ñëw sañ wax ne dindi naa ko na nekk sëy bu war mooy aw intaahin lasima muy sëy boo xam ne du sëy bu kenn sañu ñëw ne daa koy dindi mel ne ñu may ko jaam boo xam ne sang ba mën naa ñëw ne daa koy dindi mbaa ñu may ko koo xam ne day yàqatu alal ba da ko yilif bu dikkee ne sañ naa koo dindi nay sëy bu sëyës te dindi loolaay tax mu mën a dem ci kenn bëgg ndax ki moom kon tàggoon naag moom aw asri nag mooy ñaar ñi nga xam ne mën leen a boole su fekkee ne ka mu doyal amatu ca soxla dañ koo jàpp ci lu mel ne xare te yaakaaruñ ca jotati ca kon sañ naa daal dem ci dañ ko waxoon ne ko mënoo koo booleeg moom ba tey bu fekkoon ne jamonoy jaam xëyee la te ki nga xam ne moom la joteel te bëgg koo bàyyi dem ci ka ca des daa jekki-jekki daw xamuñu fu nekk te yaakaaruñ ca ak dellu si mu yaakaaruñ daañu ko jàppaat ba tey kon mën naa dem ci kam bëgg a dem dañu waxam ko ne ko mënoo leen a boole jamonoy jaam amee bu yoree jaam bu jigéen ba joteeg moom te bëgg ko bàyyi dem ci ku mel ne rakkam dañ ko wax ne ko boo jaayee kii rek daal di mën a moom ka ca des joteeg moom mbaa nga takk ko joteeg moom doon ci sax jaay nga jaay kii nga xam ne amatoo ci te nëbb nga ca sikk soo xam ne mën naa tax ka nga ko jaayoon sañ la koo delloo sil mu ne nag jaamu jigéen bi nga xas am bànneex ci moom bëgg koo bàyyi nag dem ci koo xam ne mëne su leen a boole su fekkee da nga koo jaay rek jaay goo xam ne baaxut te yoon delloo sil la ko ndax ñàkk a baax bu jaay ga léegut doo mën a fab kookee nga xam ne mëne su leen a boole jamono yi jaam xewee boo yoree jaam bu jigéen boo xam ne xas nga am ci moom bànneex fekk nga moom ka bokk moom ndey mbaa bàyyi koo xam ne daa mënees koo booleeg moom moom mi nga am bànneex mu toll ci gis baax ndaa mu toll gis déret wasin nga xam ne sëñ laa bànneexu ci moom te tax nga ne kon naa daal di bànneexu ci kee nga xam ne mëneesu leen a boole mel ne ñaar ñu bokk ndey mbaa bàyyi nga boole leen moom ci wàllum njaam ñuy say jaam tam li ngaa jotee kenn ka koo ki nga tàmbali joteel nag mu gis rek baax mbaa déret wasin nga xam ne yooyu jamono la joteeg moom te tax nga jàpp ne sañ ngaa jotee kee ñu ko mënta booleel ba tey ñaari jaamu jigéen yi nga xam ne kenn ka moom nga xës joteel te mënoo koo boole ka ca des su fekkee ne moom mi nga xës joteel daa am ko jotee moom cig jaawale mbaa ci njaaloo mbaa cig siif bañ ne kon faaw ñu laablu ko dama koy laablu du tax nga ne kon dagam suñu maa jotee moom ngir laablu gi naa daal jotee rakkam jee mbaa magam jee maanaam ko ki nga xam daal mënees ko boole moom la bëgg a wax ne ki nga doon jotee toll ci laablu rek laablu ko tax mën laa jotee moom du la may sañ-sañu dem di jotee koo ki nga xam ne mëneesu leen a boole jamonoy jaam xewee soo amee jaam bu jigéen boo xam ne da nga koo jaay jaayu mu waa baxa mooy dañ koy teg ci loxol ku ñu wóolu ba xam ëmb naam ëmbut su gisee deret nga xam ne ëmbut njaay ma door a dog kon jaamu jigéen bi nga xam ne moom nga doon joteel wëlbati ku jaay ko jaay gu mel noonu xamuñu ba xam jaay ma dana dogam du dog te mën a daal di jàll di jotee ka nga xam ne mënees leen a boole di jotee ñoom ñaar ñëpp sa jaamu jigéen bi nga xam ne doon nga jotee moom bañ le na doo ko mën a booleeg magam jee mbaa rakkam jee ci misaal boo ko jaayee rek njaayum xiyaar mooy njaay moo xam ne dañoo may xëy jënd li feeg nangam bu ko neexee wéel bu ko neexee bañ a wéel loolu kon wóoragut doo daal di mën a joteeg kookee nga xam ne mëneesu leen a boole di joteeg ñoom jaamu jigéen bi nga xam ne doon nga joteeg moom bañ na mënul ko booleeg kee ndax dañoo jegee jaamu jigéen boobu toll ci armal rek aj mbaa xumara ba tax mën laa joteeg moom du la may nga daal di joteeg kookee nga xam ne mëneesu ko booleeg moom jaamu jigéen bi nga xam ne jot ngaa am bànneex ci moom bañ na mënul ko booleeg kee soo ko mayee koo xam ne sañ nga ko nangoo ca moom mel ne nga may ko sa doom joo xam ne luy tee nga nangu ko amu ca googu may du tax nga mën a joteeg kañ ne woon mënoo koo booleeg moom mu ne bu fekkoon nga koo jaay sax njaay moo xam ne soo ko bëggoon a tebbi sañ ko mel ne nga jaay ko jëriñ boo xam ne lu koo dénk nga yore ko boo ne woon jaam bu jigéen bi jaay naa ko jëriñ bii ñu ma dénk daal di fab ca alalam moomale sa bopp ndax la nga ko jaay jaam bu jigéen boobee ko itam bu la neexee nga wëlbatiku ne jaam bu jigéen bi nga xam ne moom laa ko jaayoon moom jërim bi jëndaat naa ko kon nga dindi jaay ga nga ko jaayoon mel ni xàcc te sañ nga ko ndax yaa koy defal ak dindil kon jaay ga nga ko jaay jërim ba du la may nga tàmbalee joteeg kañ ne woon mënoo koo booleeg moom jaam bu jigéen bi nga xam ne xas nga am bànneex ci moom bañ ne mënoo koo booleeg kee boo ko saraxee koo xam ne bu la neexee nangu la nga ko sarax kon loolu tax nga sañ a joteeg koo kañ ne woon mënoo koo booleeg moom ñaar ñi nga xam ne mënu leen a boole di joteeg ñoom mel ne nga amee ñaari jaamu jigéen yoo xam ne ñoo bokk ndey mbaa baay mbaa ndey ak baay ñu ne mën nga leen a boole moom rek bañ caa joteeg kenn waaye doo mën a boole di joteeg ñaar ñëpp yow nag nga far joteeg ñaar yëpp mu ne kon yoon dalay taxawal ne la seetal koo ci araamal ak koo ci téye seetal rek ku la ci soob nga téye ko araamal ka ca des bi ñu ko taxawalee ne ko ndegam ñoom ñaar mënees suñu boole di bànneexu ci ñoom ñaar faaw nga araamal kenn ci sa bopp mu wax ne nag ku njëkk lay araamal téye ku ñaareel ki ñu ne kon ku ñaareel ki moom da nga koy laablu ci jote gi nga joteeg moom te waroo ko woon a def ndax jote gi nga joteeg ku njëkk ka bu fekkee nag ku njëkk ka ci boppam la wax ne moom lay téye moom du jara laablu lu may gannaaw duñ jotee ku ñaareel ki dellu na jotewaat ak moom mbaa gannaaw bi ko yoon taxawalee ne ko seetal koo ci téye bàyyi ko ca des laata muy seet kum ci téye jote naag ku njëkk ki nga xam ne moom doogu ci téye ko ba tey dana aajowoo laablu ndax jote gam joteeg moom ci gannaaw buñ ko taxawalee ne ko araamalal kenn téye kenn jot na fee joteeg moom te leer la gutoon ne moom ku njëkk ci lay téye maanaam bu takkee soxna ba xës yéeteeg moom am ca bànneex gannaaw ba nag mu jënd jàmm bu jigéen boo xam ne moog soxna si mëne su leen a boole mu ne kon ki mu takk ba am ci moom bànneex rek moom dong lay mën a yooyu def ko soxna di joteeg moom waaye kookee mu jënd ci gannaaw boy mu dig moomeelam du mën a joteeg moom ndax mënees ko booleeg soxna si mu takk ba yéeteeg moom bu fekkoon na it dafa xës am jàmm bu jigéen ba am ci moom bànneex wala petit ku door jënd nag koo xam ne mënees leen a boole te mu xës moom ba joteeg moom rek am ca bànneex moom rek lay sañ a téye ku ñaar waaye kee mu jënd te mënees leen a boole moom mën na koo moom rek waaye ba tey du ko mën a booleeg ku jëkk ka di joteeg ñoom ñaar ñëpp kon nga dellu takkaar rek ne jamono yi jaam xewee mën ngaa boole am ñaari jaam jigéen yoo xam ne dañoo misaaloo nañu bokk ndey ak baay mbaa baay mbaa yaar yëpp mën nga leen a boole moom moomu kese waaye nag waaye nag boole ci joteeg ñaar ñëpp ndax la nga leen moom mëneesu ko kenn ko rek ngay mën di joteel ka ca des moom doon moomeelu kese boo ca joteel ba yàgg nag nga bëgg ko bàyyi dem ca ka ca des nga seet kon yéem waxoon ne mooy araamal ku jëkk ki nga def ko door a mën a jàll ca ka ca des